العالمين وصلى الله وسلم على نبي الرحمة وكاشف الغمة وشفيع الأمة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الأئمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة مبكي جلد يتدي nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew اك تي بيتيم bitim réew tànn leer ak jamono di ko lo muy rajo télévision bu wal fajri fu ngeen mun di nekk ci bi maa ngi leen di booleeti juróomi baat yi ngeen miin ñi miin ko di juróomi baat yoo xam ne jamono mënut koo yàggee ba xewil ko bëri luñ koy joxante mënut koo bëree ba sàppil ko ma tibbee ko ci sama xol di gàtt nga bu ëllëgee ñu koy joxante ci biir aljana juróomi baat ya ëmb jàmm yàlla ak yërmandeem ak barke muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu di dellusiwaat ci kartanal yàlla fas yéene sof ak yéen rekk li ñu sosoon ak yéen ci seen xadiisu sabaax tey nekk juróom fukkeelu yaa ayuha ak ñaar nek ci suratu tauba tolok ayat 34 jëm ba 35 sama borom di ñu xamal kilifa yu yàqu yi ñu jitu woon ta ñaari yef yaqal len ñi ne dañoo bokkon ci diine yahood ñi ne dañoo bokku ci diine nasaraat namu ca lang ya waye ñoo lañu tuddé rek ahlu kitab, ñi di njaboot ak yonentu yalla musa ñu leen di wax yahud ngir baatab innaahu lay ilayka jañ waxoon bàyyee ko ci jaamu yëkk wa dem ci jaamu xat yàlla waaye timit ak njaboot ak yonentu yàlla Isa ngir bi yonentu yàlla Isa waxee ne man ansaariya ilallah qaala alxawaari nahnu ansaarullah fekk ñooña seen làng mooy nasaraan lañu seen xeet wa di joxe làngu nasaraan looloo tax ñu leen tuddee yahood yi ak nasaraan yi yàlla ne yéen jullit ñi moytandiku leen ñaar yi yàqaloon yahood yi ak nasaraan yi yàqaloon seen kilifa yañ toppoon ba ña leen toppoon jaaree ca yàqule maa ngi leen koy jàngal ci seen téere bii di leen ko moytandikoo ba bu leen lool dal ñu ne ko ban ban mu ne yaa ayyuhal lazina yee yéen ñi gëm yàlla maa ngi leen di xamal ne inna kasiran na ko ñu bëri minal axbaar yi ci fóode yi wa ruhbaaneeg labbe yi ne axbaar rek mu dollu ca yahuud ya bam ne ruhbaan yi mu dellu ca nasaraan ya mu ne ñaari yëfa leen yàqal bi ci njëkk mooy lekk xalli jàmbur yi lekk gu teguwut fenn moo tax mu ne li yakuluuna amwaala naasi bil baatili ñaareel ba mooy bëgg daraja ba duñ leeral ña leen toppoon yoon wu leer wi ndax yëg ne buñ leen xeeyee bu ñu xeewoo rek i xewee ku baxi leen fa te su boobaa seen daraja ji amoon danañ ko ñàkk moo tax mu tofal ci wa yasudduuna an sabilillahi kon lekk xalali jàmbur yi ak fonk seen daraja ji moo leen yàqal seen fóode ak seen labbe ya te ñooña nekk ay kilifa yu ñuy war a topp bu ñu yàqulee ña leen di topp dañuy mujj yàqule mu daanee nag aaya ji wax joo xam ne da ko boole jullit ñeeg nasaraan yeeg yahud yi ne walladina yaknisuuna aldahaba walfiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi kep ko xamne ne jox alal nga ndàmb ko def ko ci ay for tej wala nga jël ko baye ko ci compte banque yi wala nga gas ba mu xoot nga denci ba haq ji nga xamne ne la ci masakin yi am tama gatch la ko muy asaka ak len ci sarax ciobare yek ndimbal yek dog bu mu moo xam ab yahud nga moo xam ab nasaraan nga moo xam ab julit nga su ko lëggee danaa digal sama yonantu bi na la jox xibaar bu leer naan ñene ëllëg safara mooy sa dëkkuwaay moo tax mun ne ñoo ña defa basiruhum nang leen solo rek bi azabin ci mbugal mu nekk seen kanam moo xam ne alimin mu méttee métti lay doon alimin moo xam ne borom ak méttit la bu ne nag fa basiruhum maa ngi lay bégal ci mbugal loolu tëxëkkum lañ koy tuddee ci balaaxa mooy ñaawale piir mu ngi mel ni nga woo nit ki ba ñëw nga ne ko maa ngi lay bégal ne sa doom ji dee na wala maa ngi lay bëggal ne sa jabar gi takk na bagaasam yi dem ñibbi hee yooyu yëpp bégle ci luy bég bégle ci luy bégloo waaye fépp fuñ utiliser baatab bégle te lañ lay jox bu bu xegsee ci yow rek soppeeku naqar dañ koy habal firi firé ko ne nang len solo waye do ko firé mu ko ne ko fa bashiruhum na len begal tahakkum lañ koy jangale ci balaqa moy ñaawale su ko defé nak kon ñett melokan yi bu ko ñett ñi melokano kum ci mundi don safara moy nek sa dekk way moy lek halali jamburi tek ko ci ne malen hilif di len sas bañ di jël ci seen xaq yi luñ sañta lànk yooya ku ko def di ko tuddewoo ci diine lislaam mbaa ci yawut mbaa ci nasaraan yàlla nee na sa dëkkuwaay ëllëg mooy safara ñaareel bi mooy bëgg daraja ba tax doo wax dëgg bëgg daraja ba tax doo leeral nit ñi yoon wu leer wi na nga xam ne ndax boo leen ko leeralee rek ñi xeewu bu ñu xeewoo xeewee ku bala fa su ëllëgee diine joo ko mën a tuddee nga nekk ca sa ëllëg sa dëkkuwaay mooy safara ñetteel bi nag mooy ndàmboo xalal doo ca joxe asaka doo ca saraxe doo ca maye doo ca leble doo ca dimbale néew ji doole yi te yàlla comme jox lu ëpp sa soxla dafa laa séddaleloo kenn ku ne xam na lii doy soxlaam su boobaa nag fa bashirhum bi azabin alim rek moo cay tegu nam leen i mbugalee nag métit wi lay wax ne fàttalikul ma yuxma alayha fii naari jahannama fàttalikul bis bi nga xam ne def na lakk leen ca safaraw jahannama di ñaas seen jëya di ñaas seen gannaaw ya di ñaas seen wàll ya malaaka yi di leen ñaawal ne lii mooy li ngeen ndàmboon ci àdduna ci alal def ko ci compte yi du ngeen ca lekk du ngeen ceen lele tey lii la ko yàlla fayee moo tax mu ne yow ma yox ma alayha fii naari jahannama fa tukkuwaa biha jibaahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum malaaka yi leen hada ma kanastum li anfusikum léegi nag li wér taxóor fa zuuqu ma kuntum takk ni suuna ko dang mos leen li nga xam ne yéen a nekkoon di ko ndàmbu kon gis nga aaya boo ko càmbaree bëggul kenn di mbubboo diine ñi lay jiiñ naan kilifa nga ngay lekk xal li jàmbur yi ñaareel bi bëggul kenn kuy mbubboo diine ñi lay jiiñ naan kilifa nga lu la nit jox ci daraja nga xeeb ko ba doo wax dëgg doo teg nit ñi ci yoon jàngoo jàngalewuloo orienté woo kenn ci yoonu njub yow daal la la bàyyi ca diina ja mooy sant wa rekk ak daraja ja rek loolu amul benn njariñ bu ñetteel bi mooy yor alal ma jox la ko doo ca génnee asaka doo ca saraxe doo ca maye doo ca leble doo ca dog bu mu gàcce yi yi ñetti melokaan yi ku ko melokaano sama borom nee na boo ëllëgee boo dajee ak man ma fuddu sa ndigg te kenn du ca man dara waaye buñ ko càmbaraatee ay liñ ciy déggee mooy ne leader lu ama am solo la leader boo xam ne ku jub ku am xam-xam ku ragal yàlla. ku kenn mënul duut baaraam bu dëggu ci lu mbon kooku xeet wu ko am askan wu ko am famille bu ko am dañ dem yàlla nag ne yahood yi li yàq seen diine ja ak nasaraan yi mooy ñàkk leader am nañu ay njiit waaye njiit yu dëng lañ am njiit yu jubadi lañ am yu tëdd ci lekk lekk xal li jàmbur yi rek di doxi ci marché yu tegul fen boole koog di jaay daraja ju amul fen koo ca gis bu solo ba na jing wallaahi yow sax da nga koy rusa xool tabaarakallaahu boole kook tamit yor alal di ko korkoral doo ca lekk doo ca lele. moon kon nag al qudwa ama am solo la qudwatul xasana am na solo moo tax yàlla bi mu bëggee xeetu yonantu bi nekk ca kanam dafa ñëw utal leader boo xam ne kenn melut ni moom ci xam-xam kenn melut ni moom ci njub. kenn melut ni mom ci ragal yalla kenn melut ni mom ci mbax ne nak samp ko muy sen idol roy len ko bu ko topé da ngeen jub ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana waye nak ci ko xamne liman kana yarjullah wal yawmal akhirah, wa zakara allah kathiran seeti ko ca laxsaab aya 21 dana waxat fenen ne wa in tutiuhu tahtadu ki de moy ko xamne ne man ne su ngeen ko topé da ngeen kon leader mënul ñàkk waaye dëkk boo fi gisati xamut kilifa gu ñu rus goo xam ne bu waxee lam digle ñi def ko bu teree la mu tere ñi bàyyi ko yàlla may ko xam-xam may ko ragal yàlla may ko wegeel ba lépp yàkkamti nañ ña ko topp sax mu digle bañ def waaye sax lu ñuy tere moom du ci gis sax njabootam fekk na nag loolu la koy maye dafay fekk lépp looy digle jaay say jiitu li ngay tere tamit da ngay fexe ba kenn du la ca fekk waaye yàlla ñàkkeewut fulla ngay digal nit ñi loo dul def ñoom ñi koy def yàlla ñàkkeewut fulla noona yàlla ñàkkeewut fulla ngay tere nit ñi loo bàyyiwut ñu ngi koy tere di ko bàyyi manta ne dëkk bu am nag leader bu mel nii wallaahi danañ dem ca kanam mboole mbooloo mu mën a doon mu ñu topp ñi am ñi am kilifa gu mel nii danañ dem famille boo mën a gis père de famille ba mel nii fokk danañ dem kër goo gis borom kër ga mel nii kër googa dana tegu dana tegu ci njub waaye léegi bokk na ci liñ gën a rafle mooy kilifa kilifa yoo xam ne lañ lay digal parewuñ ngir baja dara lañu lay tere parewuñ ngir bàyyi ko buñ la digalee njub ñi ci xëpp ñoo gën a jubadi buñ lay digal ne bu lekk xalali jàmbur yi ñoom ñemewuñ koo wax fe ñemewuñ wax fépp ndax ci lekk xalali jàmbur yi lañuy ñuy dëkk buñ lay tere ak sàcc mu bëri ca ñuy sàcc ñii di la tere njaalo ñoo dàq njaalo ñii di la tere nangam naan sàngara ñenn ña ca gën a bari ña nga ca kon nag bu yàlla demee ba jamono yàqu ñi rafle ci ay kilifa pour ñu dem dana jafe lool motax ji jamono ki ne kine mo gëna bari ki ki nek kilifa kon nak yalla musul yoni aw xet lu da fay set ka ca gën ca xet wa nek kilifa ga mu jël ko yoni ko su ko defé koka ñepp mëna baxé ca baxam ga lolu la yalla defalon sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baye ko fi mu jël lengay ya jox ko sayyiduna abubakar sayyiduna umar Seyduna Osmaan Seyduna Aliyu demeet lenga ya di dem di tasaaroo fu ne waaye tey bokk na ci liñ gën a rafle mooy kilifa goo xam ne njabootam déggal nañ ko cent pour cent te fekk na moom tamit man ta fexe ba njabootam déggal ko te fekk déggalul yàlla waaye boo déggalee yàlla ci lu feeñ déggal yàlla li ci li li nëbbu mu nekk ci lu wér far force ñi nga xilif dañ lay déggal kenn mënu ci dara kon nag yahud yi li yàq seen diine lépp mooy ñàkk kilifa gu mat kilifa nasaraan yi li yàq seen diine lépp mooy ñàkk kilifa gu mat kilifa moo tax tabaarakallaahu yee seen kilifa yi dañoo hëppal ba tax na yàlla ne yahud yaa nga naan waqaalatil yahudu usayru bnullaahi ah waqaalat nasara masih masihu maanaam masihu ibnullahi waaye loolu lépp dalika qawluhum bi afwaahihim yudaahi'uuna qawla llaziina kafaruu min qablu qaatalahumullahu annaa yu'fakuuna ittaxazuu ahbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duunillah waaye loolu lépp moo leen yàqal kon loolu yal na yàlla musal ñu ci yal na yàlla musal ñu ci niñ daan lekkee xale li jàmbur yi nag dafa bëri. bokkoon na ci di fee di di feeñal melokaan wu baax ku la gis foog ne xaras ngay fanaanit loolu bari ci ci jamono fekk yaa gën a xiis yaay ki gën a bon nit ñi jàppeele na ne yow ku baax nga ku yiw nga ku sell nga sa ñaandu du fanaan tabaarakallaahu sa sa melokaan wii mën nga cee defar ñu bari fekk yow moomu ndeketoo ngaa jekk ci biti waaye yaay ki gën a tilim nekk ki gën a bon ci biir lépp lu yàqu ci diine kilifa yu mel noonu ñoo ko yàq moo tax shaacir ba ne wahal afsada diina ila almuluku wa ahbaaru suin wa ruhbaanuha lu fi yàqu rek looloo ko yàq ñaareel bi bokkoon na ci di mbubboo diine tabaarakallaahu waaye fekk na luñ leen jox ci turu diine rek ñi lekk ko lii ñu dem takkee ko séet lii ñu dem jënd ca tabaarakallaahu ay 4-4 lii ñu dem tamit tabaarakallaahu sanc ca ay yére yoo xam ne kenn xamut ni mu mel waaye fekk na loola lépp yàlla amul ca benn cër loolu kon lu yées la lu bon la bokkoon na ca melokaan yi daan lekkee xal li jàmbur yi te yëpp mi ngi ci suñ jamono ji di defee ay fatawaa daganal lu yàlla xaraamal di xaraamal lu yàlla daganal su ko defee jublu ca loola di mën a lekk xalalu nit ñi ndax ña ngi say dab seen bànneex ca loola te fekk na loola yàlla waxut ca dara ba alquran qul man ansala alkitaba alladi jaa bihi musa nuuran wa hudan linnaasi tajaaluunahu qaratisa tubduunahu wa tuxfuuna kathiran wa ullimtum ma lam taalamu antum wala abaakum yooyu yëpp ca lañ nekkoon ma ngi ca lan kon loolu lépp dafa ca nekkoon bokkoon na ci amee kaanu ku baax ba nga wóolu leen jox leen alal li ñëpp bokk ngi dagale ko dénk la ko wala ñenn ngi ñëw wóolu la jox la ji nga jël loola tëdd ca loolu bari lool ci ji jamono bari na ci ñoo xam ne ku naan yëpp mooy sama sëriñ fii laa jaar ak moom waat naa ci yàlla boo ko dénkee sa alal ji mu lekk ko te du mujj fenn moo tax bëri na koo ci jaxasoog la mu mujj rek billaahi li ma sëriñ bi def waaye doo dégg ma ko li ma sëriñ bi defal loolu tamit melokaan la woon ca gaa yu jiitu woon ba alquraan wa min ahlil kitaabi man in tamanhu bi qintaarin yu addihi ilayka wa minhum man in tamanhu bi dinaarin laa yu addihi ilayka illa ma dumta alayhi qaa'iman dalika bi annahum qaalu laysa alayna fi l ummiyina sabilun wa yaquluna allahi kadiba wahum ya'lamuna ala imran aya 75 bo demé fek ko ca mu ne am ki ñoom ñoo ne ba alal nang ko dénk woon da nga ca jot nyokam ne nak ba tey nyu yu baax lañ mais ne bole nu holo ba nke lesen alal Don tele alal je lu mu tut tut di benab dinar do ca jot mukk ndax dañu japp ne serigne bu lekkee xali taalibi tamit du mujj fenn yoy nak waxi rek la loolu la làbbe yi gëmoon ak foode ya waaye ngëm-ngëm googu tamit rogaan na tey ba ci actuellement ci suñ jamono jii bëri na koo xamee da nga séq ak moom alal lekk ko ne du mujj fenn bu la waxee àllaaxira nga ne ko ndem da nga ma gis ndax ma bu àllaaxira sax doom a gis wax waxi caaxaan yooya te mu bëri lool. wala jàpp ne lekk alal yi ñi nga xam ne dañoo bëri alal muy naar yi tabaarakallaahu du mujj fen am na ñu gëm loolu ñii gëm ne lekk alal tubaab yi du dara nekkut ci. ñii jàpp ne lekk alalu américain yi dara nekku ci loolu pas-pas bu bon la bu wuteeg li alquran jàngale képp ko lekk li jàmbur ku mën a doon jullit la doonul jullit bu yowmal qiyaama yàlla dana régler seen diggante ba nga delloo ko àq ja su ko defee bu àq ya matul ñi jël lu bon yi ñooña këppal la ko nga mujj dem safara dugg ci la yonent bi ne na mal mu mufallas kon yooyu yëpp nañuy daw xuquuq yi dox ci suñu diggante <coughs> waaye fanaanee julli hendo naxé aka bari bëri guddi gi yëpp yaa ngi naafi bu beur sété rek nga sol daraa yi naxe di naxé ba jant bi soxaan nga fanaanoo julli fanaanoo julli hendo naxé aka bari ta lolu lu bon la ku ko def rek tabarakallah bokku ga ci borom pas-pas yu bon yu ñaaw yi di tekkul ca walu wawa mu des nag wallazina yëkkanisuuna dahaba wal fiddata ñii dañoo gëm ne aaya jooju yahood yi rek ko tax a jóg muy ahlu kitaab muy yahood ak nasaraan a ah, ah, waaye boo demee ci aba zarin dafa ne aaya ji yahood yeeg nasaraan yeeg jullit ñëpp ko bokk Qurtubi yu loolu la gëm loolu dafa ne su fekkoon ne nii maanaam yahood yi rek ko moom ak nasaraan yi yàlla du ci indi waaw bay wax ne na walladina yaknisuna zahaba dafa ne alladina a zahaba rek badal ko ca wax ja jiitu woon waaye nag jumlatu jooju tu istinaaf la su boobaa nag dafay tekki ne dugal na yahud yi dugal na nasaraan yi dugal na muslimun yi nga xam ne dañoo melokaan moo melokaan wu bon wu ñaaw woowu waaye nag ndàmbu xalal na mucc ko ko denc rek ci compte yi waaye xalal ju ndàmbu daal ni ko boroom xam-xam yi firee mooy alal joo xam ne ak yàlla war na ca lu mel ni asaka ak ya cay nga bañ koo joxe kooku la ñuy tuddee alal ju ñu ndàmb ji yàlla xool si na yëkk ni sunu zahaba wal fiddata wala yunfiquuna fi sabilillah fa bashirum bi adabin alim waaye nag boo jëlee alal ji denc ko waaye terewut la cay akk ci asaka wa joxe nga ko ba mat sëkk loola kenn du ko tuddee alal joo xam ne ju ñu ndàmb la ndax euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ay sahaba daana ñëw di ko diisu ci seeni alal mu leen di orienté jël leen lii ngeen def ko ci seen njaboot jël leen lii ngeen def ko ci yoonu yàlla noonu la ko waxee woon Saad ibnu Abi Waqaas ba mu ñëwee ne ko sama xalal ji lépp laa bëgg a joxe ci yoonu yàlla dénkaane ko su ma deexee ñu saraxe ko yonent bi tere ko ko ne ko joxeel sulus ba rek sulus ba rek doy na xaajal sa alal ñetti xaaj ñetteel ba nga joxe ko yeneen ñaar ya sa way donn ñi donn ko abu dax daax góor gu bëri xalal googu ba mu amee ñaari toolu sax yu rafet ya ñëw ci yonent bi ne ko ñaari yëpp lay def ci yoonu yàlla yonent bi na ko benn bi doy na jëlal benn bi nga baxee ko sa njaboot ñu koy dundee ijaal ihdahuma lillahi wal uxra daaha maishatan laka wali iyaalaka wali iyaalika loolu la ko yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam kon tekki hut li nga xam lépp nga war a joxe ba boo dencee alal lum tuut tuuti ci banque mbaa nga denc ko gi sa kër dugg nga ci wala dina yëkkani sunu zahaba wal fiddata déedéet la cay xàq yàlla ja boo ko xasee génn lafa des lu mu bëri bëri boo ko dencee du kenn du ko tuddee lu ñu ndàmb moo tax gis nga yàlla bëggul ñu joxe lépp ba muy wax sax ci wàllu dundale dafa ne anfiqu min tayibaati ma kasabtum te xam nga min googu minam tabiid la mooy da leen dundale ci lenn ci li nga xam ne lu teey la ci li nga xam ne yéen ko fàgg waaye waxul lépp kon nak loolu nañ ci baye xel alal juñ du doxé asaka dal lañu tuddé alal juñ ndambu yonentou bi firi nako hadith yonentou bi ci waxam ci jëfëm ci comportement am moo ñuy firi dal quran motax yonentou bopam dafa daan wax né a yàlla farataalut asaka ludul dul mu teeyal la des alal ja waye faratalul mirage ludul mu nek ñeexal ña ña nekk si ñay dundu sa gannaaw bam ko waxe xomar reel wax ja ne ndax du mala solo kon lu gën lo xam dana ndamb ko cham si te mu gën mu ne ko lolay lan mu ne ko moy jabar ju baax jo xamne boko xole rek bekk boko ko mu top sa ndigal boko wone gannaaw timit du la xor ci hor du la xor timit ci sahalal motax yonentou bi taxaw sahaba yi war ko mu ne inna allaha lam yafridi zakata إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم فكبر عمر ثم قال له ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء آه يرنت منكم لك عمر نقول الله منكم المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته wa kaba qaba anha hafizatu kon li la yonent bi jangal Omar nga xamne kon li gën ci li ñuy di ko denc moy jabar ju bax muy jabar gu bax rek da jabar ju bax nak moy may jabar gu bax ndax ku bëgg jur sa nawle da ngay lu ba jël sa nawle ku jël sa nawle jur sa nawle kon lolu jarna na xel ah yonent bi daana tok wax sahaba yi ne man de ragaluma si yeen ñak man kay li ma ragal mooy wër wërsëg wu tàlli ba xëpp ci yéen àdduna xuy si leen comme ni mu xuy see woon nga leen jiitu woon ngeen nekk fa di xëccoo àdduna ba àdduna mujj xalak leen comme ni xalagee xalakee woon ñi leen jiitu woon xegg nañ ca dafa daan toog saxaaba yi wër ko mu ne fa wallahi lal faqra axsha alaykum walakin axsha alaykum an tubsata alaykum dunya kama busitat ala man kaana fa fatanafasuha kama tanaafasuha wa tuhlikuhum kama ahlakathum buxaari yoog muslim tirmisu yi ibnu maaja imam ahmad ñoom ñëpp ënd nañ xadis boobu mu bokk ci xadisu salim ibnu abi jaada moom mu jëlee ko ca sawbaan mu bëggoon yonantu bi ba ne woon mënuma laa muñ yaramam wa jeex ba yàlla xamal ko ne ko bu ëllëgee yàgg yonantu bi yéenay bokk dëkk aljana su ko defee kon nag nañ ciy bàyyi xel yonentou bi neena ragaluma ci yeen ñak de man kay may ragal ci yeen moy bew rek aduna xuy si len rek ngeen nek fa di sata gay di takka fase di jënd auto yu ngeen dul dawal di tabax bâtiment yu ngeen dul dëkkee dagale yére yi ngeen dul sol jël halal je diko xexé seen mbokk diko titaro yoyé e lay e ragal ba loola ngeen nek ci aduna mujjii fepp len bo legge ngeen dem safara waaye daana wax moom yonent bi ne juróom yàlla juróom la koy faye fayee yéen wi ne yéen laay wax ak yonentooy wax bu bu leen yàlla nattoo yee juróom maa ngi ciy muslu loola jot leen bi ci njëkk maa ngi leen di xamal ne bis bu njaaloo bëree lu xale tuuti tuuti xam juróomi fukki at ak juróom ñaar fukk euh, ci góor wala ci jigéen boo ko laajee mu ne am na lu mat juróomi coro kini ne xamna lu man juromi far bu àdduna deme ba tollu fofa njaaloo gi bëri ba du ngeen ko neub ci ci ci ci auberge yi du ngeen ko neub ci hotel yi du ngeen ko neub ci mbedd mi xam nga leen yalla fayam moy andil leen mbass yalla def nañu ko njaaloo gi na motax corona baa ebola baa ngoog feebar yu bon yi ken xamut mako ay métit timit yo xamne ne ñi leen jiitu woon musuñ ko wona xam moom laa moom laa leen di fayee loola bu njaaloo bari xam ngeen ne feebar yi xew ji ci jamono suñ maam ya xamuñ ko woon suñ maam mataar ya xamuñ ko woon te jamono ju nekk muy gën di yokk jamono ji la hôpitaux yi gën a bari jamono ji la médecins yi gën a bëri waaye terewul tey la malade yi gën a bari te bu njëkk ba hôpital yi bëriwuñu médecins yi bëriwuñu waaye ànd ak loolu tamit malade yi bëriwuñu woon waaye tey garab yi bëri nañ. xam-xam tey la gën a bari ci wàllu médecine tey la médecin yi gën a bëri tabaarakallaahu tey la hôpitaux yeeg case de yi gën a bëri waaye tey la malade yi gën a bëri téeméeri nit ñoo janoog su la neexee man ngaa dogu ne juróom-ñett fukk yëpp ba juróom-ñeent fukk yëpp ñi ngi sooxaaleek jàngoro yoo xam ne ñenn ñu tëdd na ñeen ñu mënuñoo tëdd ñii ñi ngi amee jàngoroy bët ñii amee jàngoroy nopp ñii amee jàngoroy tànk ñii amee jàngoroy biir ñii amee jàngoroy ndigg ñii amee amee amee moom daal xanaa kay ay jàngoro la wax ku la xëppale kay moo fi waaye koo wax kay dana wax ne la lii may métti ak lii lima lima lim ba mu ba waaye jamono ji sax ko amee benn jàngoro rek rek santal yàlla lu ko waral njaaloo bëri yonent bi nee na bu ngeen demee ba njaaloo bari nëbbatu leen ko te xam nga jamono ji mooy yàlla gi nëbbatuñ ko nekk koo xam ne takkoo ko ngeen bokk lëngalu ko ci penc mi di dox xamoo ca benn rus kenn ku ci nekk sol yëre yu bon ngeen romb seen seen seen waajur ya romb i nawle yi xamoo ca gàcca amoo ca dara dara dara looy rus bala ngaa dee nga naan kii kat ñaanal ma ma ko bëgg a takk juróomi xat a ngi nii may génn ak moom ma ne ah juróomi xat de ko ko génn xanaa war ngeen a sori de juróomi xat ngeen di dox di lambar lambar rek xanaa kon dafa ngeen nekkoon sori na te loolu sax amoo ca gàcca foofa bu fa jamono tollee te hegg nañ fa xanaa passé kay la ñuy wax moo tax tamit jàngoro yuñ xamutoon mi ngi dal ci suñ kaw moo tax yonent bi daan wax ne yaa macharal muhajirina xamsun isabtulitum bihinna wa audu billahi an tudrikuhunna lam tadhari alfaxishatu fi qawmin qattu xatta yuclinuu biha illa fasha fihim taaunu wal awjaau allati lam takun madat fi aslaafihim allatina madaw kooku hegg nañ ca bu ñaareel bi mu ni du ngeen fi nekk seen jaay kat yi la ñuy nattee du fees pot ya ñuy nattee baaxut métérage ba baaxut ñi nekk fa di mës-mësal kenn ku ci nekk sooy jënd am nga sa pot booy jëndee ak pot bi ngay jaayee nekkul benn nga jar sa doom yeeg sa njaboot gi ci tappale soo ko wooyee ne ko la waaje commerçant ba defoon ne ko ma pot ba mu ne ko papa ban mu ne ko boobee loolu rek la wax mu xam pot booba xam nga ne loolu ñoom ñaar ñëpp kii deung na yar ci doomam bam mokkal deung ga wan ko ne ko bobé manké na mu bi may jëndé way bokkut ak bi may jaayé dé waage dem andil ko doom ja andil ko pat bobé nga xamna ñom ñaar rek ko dégg ah mu jëndé ca bu ko bëggé jaayé ne ko andil ma bobé am num koy xëccé ñom ñaar rek koy xam nak tapalé go xamné ne kenn mënu la ko wax nek langage ci commerçant yi lola yonentou bi neena bu gene demee ba jamono hegg fa lama leni la leni yalla fayé moy ati bekor ngeen nekk ci tatak jafe-jafe boo boole koog buur yoo xam ne dañuy jeng ci seen kaw di leen mbugal du ngeen ca man dara hegg nañ ci ñett yëpp hegg nañ ci moo tax mu ne moom yonun tooy wax walam yanqusul mikyaala wal misaana illa uxidu bi sinina wa shiddatil maunati wa jawri sultaan alayhim kon gis nga dugal ak tappale ci commerce bi jël pireeb pre deuxième qualité di ko jaayee prix première qualité jël marchandise mu bon di ko jaayee prix marchandise mu baax jël dugub ju ñaaw jaxase ko dugub ju rafet ju rafet ja nekk ca kaw nga def ko ca ngooñ ma def ko ca dugub ja def ko ca ceeb ba def ko ca xorom sa def ko ca yeneen xeeti jumtukaay yooya ñiy jaay xeeti marchandise ya fexe tamit yeneen ñiy jaay yeneen yëpp kenn ku ci nek duggal nga ci ak topale go xamne ne ta xam yonentou bi neena bu ngeen deme ba hegg fofa lola dafa graw ba nga xamne ne ñetti mbugal la leen yalla mbugal bi ci ñeuk moy bekor deug deug ñi ngi dundu bekor nawet bu ñew rek gëna hees moromam xam nga ne ren ñepp fogon ne dara du jeexati ndax li yalla ji taw ren neewna jamono jum ko tawé waye ndeketo taw bu bëri du joxe nawet dem na sax taw ba bëri ba mujj taw yu mujj yi sax dafa mujj yàq la li nga xam ne ñoroon na ba pare waaye dara taw bu yàq nag mooy moom ñàkk taw ko moo ko gën nga nekk ci bekkoor nit ñi ñàkk ñi dem tamit tabaarakallaahu la ñu xam que néew ñi ngi xam problème tamit fu mu ne ci jaay ga. da ngeen may jaayee juróom fukk far force ñii ne ñun gis nañ ko man juróom benn fukk ñun du ngeen koo jaayee su ngeen ko jaayee yoon dal ci seen kaw yooyu yëpp. bàkkaar yu bon yi ñu def moo mujj dalaat suñ kaw ñun ñëpp te kenn mënu cee mucc mu ne tamit ma teg leen coono ngeen xam lu bëri te du man dara jamono ji foofu lañ toll dara jeexut mais dara doyut dara jeexut waaye dara doyut ba fi suñ maam yi nekk nag amuñ dara mais jeexaluñ dara ñun nag neexut ba neexut ñàkkuñ dara mais amuñ dara ku la fi gën a bëri alal nga ñee ko boo toogee moom wéet ak moom. boo boo ko waxee sa problème bu la waxee problème am rek li nga xamoon lépp nga bëgg ko koo may ngir yërëm ko ku la ëpp alal moo la ëpp coono dalaltuñ nelawatuñ ñi ci gën a sàggan jaamootuñ yàlla mënatuñoo teewlu mënatuñoo jàng alxuraan nañ ko bëggee mënatuñoo julli nañ ko bëggee mënatuñoo respecté waxtu yaag la ca aju moom daal kenn ku ci nekk tey sa wërsëg mooy sa coono wërsëg nag bu demee ba soppeeku coono musiba nit dikk na moo tax mu ne wa shiddatul mauna waaye ba ca tegu tamit mooy wa jawru sultaan mooy réew mu nekk di xoote woone ab jullit ngeen te marché ba teguwul ci yoon danaa leen nattoo président boo xam ne yéen ñëpp da ngeen ngee joxu mu jugee koo fa moo tax foo ca dem ña ngay joow jooy suñ président bi suñ président bi nangam waaye waaye bu demee tamit bëkk ne ñëwee nga ne na dem rek ku fi bon a ne rek ak réew mu mën a doon rek bu ñëwee balaa yàgg rek nga ne doyal nañ sëkk na dem loola nag kon nattu la gu nekk ci ñun ndax ki ñuy jiite kenn la ci ñun rek duwut kuñ dem jëggaani duwut kuñ jëlee ci mëneen réew réew mu nekk ka fa dëkk moo fa mën a jiite su boobaa nag kooku kenn la ci ñoom rek yonent bi daanaka wax ni ngeen mel rek laa leen tànnal maanaam njiit lu mel ni yéen mu ñëw jiite leen kon nag tabaarakallaahu lii moom ñëpp ko dund ñëpp a ngi jooy foo ca dem rawatina ci réewi Afrique yi ña ngay yooxu seen président ba maa la ko wax kenn ku ci nekk ñi buñu xamé benn mandat doyal nañ sëkk ñi buñ ne ñaari mandat doyal nañ sëkk ñetti mandat moom xel ko su ko defee tamit coono yooye yëpp foo dem yaa ngi koy dégg tabarakallahu mu jaral nit ñi jaay seen bakkan loola mooy kon tekki ne doyal nañ ca waaye fekk ndeke te la lépp du dara lu dul bi nee na bu marché bi marché rek ca nam war mel lañ war a jaay ñi ko fay jaay di ko jaayee nañ ko war a jaayee bu dàqoo xor bari tapale bari gëñ ye bari manam tamit naxante ba bari ma sadde len tek len njit lo xamne dafa len di karwaase du len yeureup te du ngeen ci man dara njit lo xamne du teggu ci yoon ku deung lay don te du ngeen ci man dara kon gis nga marché bu teggul ci yoon ñetti mbugal la bi jangale ne mo ngi cey dal moy ati bekor, ak am alal ju ne ta man ta def dara ku la ëpp alal la ak njit lo xamne mu baye ko fa muy ñaaragum ñetteel ba nag sallallahu alayhi wa sallam ne du ngeen fi nekk asaka war ci seen alal ji du ngeen ko génne lu dul dama leen di taw maanaam bu taxutoon ak bàyyi may sax du ma taw taw ba may taw ak néew ndox ma du ànd ak barke te bàyyi may laaj ca ngir ñi mën a am ñax muñ lekk moo tax may taw yonum tooy wax walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al qatra min as-samaa'i wa lawla al bahaa'imu lam yumtaru lii la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam te loolu tamit dund nañ ko boo ko seetee actuellement réewu jullit ñi ci ëpp baadaloo rek ñoo cay génne asaka ñoo ca gën a bari waaye li ëpp ci milliardaires yi ëpp ci millionnaires yi buñ génnee asaka wala même guñ génnee asaka nañ koy joxee du baax te soo génnee asaka na nga ko joxee baaxul yàq ki génnewul asaka yeneen képp ndax asaka ñañ ko war a jox yàllaa ko xasru bëggul ku ca bokk dugg ca bëggul ku ca bokk génn ca ne innama sadaqaatu lil fuqaraa yi bu waxoon asadaqaatu lil fuqaraa dana jub waaye li ko noon nag ku ca dugg ku ca bokkut mën na caa dugg ku ca ku ca ku ca bokkati mën na caa génn waaye bu ne innama nga xam ne moo gën a efficace ci maanaam addawaatu xasr yi moom la yàlla appliqué dafa xamee ñaari maanaa xamee ne maawu naf yi xamee maanaam illaahu isbaat ne sarax daal as duñ ko jox ludul fuqaraaw yi masaakiin yeeg juróom-ñetti xeet yooyu mu lim kon nag su ngeen demee ba du ngeen génnee asaka ma xeeñ leen taw taw ba may taw ak néew bàyyi ma yay tax moo tax ñoom danañ xam ñax muñ lekk mais yéen du ngeen xam gàncax gu ngeen jëriñoo ndax ndox ma du ànd ak barke. kon tey ñoo siraat suñ bopp tey ñoo siraat suñ bopp loolu dund nañ ko waaye ñetteel ñeenteel bi mu ne. walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa salatallahu Alaihim aduwan min ghairihim mu ne su ngeen demee ba firi kóllëre ak yàlla gi ci war koo topp jëfandikoo ndigalam ya bàyyi tere yi Wara Wara timit ngeen firi kóllëre ak yonantu bi bana jëfandikoo sunnaam lim leen jàngal seen yoon nekku ci li leen tubaab yi jàngal moom ngeen gën a gëm ci loola dama leen di indil noon bu ci muy digg du ngeen man tous foo ca dem tey réew mu ne am na a am na noon bu ko dend ak moom moo ko teree nelaw léegi léeg sa yàlla am lu mu xaaj ca ñoom ñooña ñoom ci seen biir ñi mujj di xeex lu ñu xam jëndee ko ngànnaay jëndee ko ay ravitaillement def ca lu nekk te dara amul menn réew actuellement ci réewu jullit ñu lu dul rek koo ca lim rek da wax ne diway noona moo ko teree nelaw kon nag lu ko waral dañoo firi kóllëre ak yàlla firi kóllëre rek yonent bi moo tax yàlla sadd ci suñ kaw ay noon yuñ mënul dara yow mi may déglu boo ko firee tamit yàlla indi la noon boo xam ne moo lay teree nelaw mën naa nekk sa jabar ji mën naa nekk sa doom ji mën naa nekk sa mbokk mi mën naa nekk sa xaritab démb bee mën naa nekk sa dëkkandoorab tay bii te dara nga ca mënut bu juróomeel ba nag moo gën a garaaw bu juróomeel ba mu ne du ngeen fi nekk bàyyi fi tiir yëpp yàlla bi ne du ngeen ko atteewoo di atteewoo ay texte yoo xam ne ay doomu aadamaa ko xalaat bàyyi fi yàlla mi xalaatal nit ñi nga ne ko lim ñu andil duñ ko jëfandikoo xanaa ci julli ci xoor ca ya waaye nag ci pénc mi moom soxluwuñ ci sa xalaat dañ la ciy génnee ba mu jeex yàlla nee na loolu saa yu amee dama leen di def yéen ki seen biir yéen ay xeex noonante nekk ci seen biir loo formé gars yi ñëw adhéré wu jaay ma carte de membre bokk naa nangam bokk naa bokkatuma rek fa lay mujj maa la ko wax seet ko ca politique ba. ñoo jëndoon carte ne membre ne bokk na ñëpp balaa yàgg rek ñu ne bokkatuñ kenn ku ci nekk xaaj parti boppam li fi parti yëpp mën nga wax ne tey ci ñaari parti rek lañ soqee ko yëpp kii fii la bokkoon mer maanaam dagg dara ca tur wa yokku ca dara tudd tudd indi parti boppam kii fi la neexoon mer na indi parti boppam noonu tamit mu amee tabaarakallaahu ci ci politique bi noonu lay amee ca diine ja ku xaw a euh, sëq rek ber sa saawaay bopp moo tax mu ne wa ma lam taxkum a'immatuhum bi kitaabillah wa yataxayyaru bima ansala allahu illa jaala allahu basuhum seen xay wi seen xare bi seen musiba mi ci seen biir lay ne te xam nga boo jëlee sa kër gi nga def ko verre mu nekk ci biir saal bi amul wenn xeer wu mën a toj weer bi bu bàyyi ko ca biti waaye xam nga xeer wi koy toj kat ci biir rek lay bàyyee ko su boobaa nag ñun tey xeer woo xam ne moo ñuy xaañ te kañu koy xaañ nekk ci suñ biir moo sonal ñëpp te la ko yóbboo lépp suñuy njiit yi ñoo bañ a àtteewoo téereb yàlla bi indi àtteewoo yoo xam ne kenn xamut lan la ñi fekk leen ca sañu bañ moo taxit tey yarab yàlla bi juróom yi yonent bi dëxaloon ñu ñëpp dal na ci suñ kaw ku wax sa digganteeg yàlla yëg nga yëg nga yar bi fi nga toog mooy njaalo gu bëri ba tax feebar yi bëri ak métit yi ñaareel bi mooy marché bu teguwul ci yoon ci lu ñuy jaay ak ci nuñ koy jaayee ba tax bari alal bari te mënul dara ay njiit yoo xam ne dañuy jeng ca kaw ñu njiite te mënuluñ leen dara ñetteel bi mooy alal yoo xam ne asaka war na ca nga ne duma ko génnee yàlla ne kon taw taw taw bi laay téye bu wàccee sax bàyyi ma tax la cay wàcc ci yéen du am barke laxey neen rek ak loxoy neen la leen di jural waaye tamit ñetteel bi wa euh, maanaam wala ñeenteel bi du ngeen fi nekk firi kóol rek yàlla firi kóol rek yonumtu bi lu dul ba danaa sadd noonab jàmbur mu dal ci seen kaw di leen toroxal loolu ñëpp ko yëg bi ci tegu du ngeen fi nekk du ngeen xattewoo seen kilifa yi yàlla bi lu dul ba danaa wàccee xare wàccee musiba wàccee noonoo xeex ci seen biir kenn ku ci nekk sa xaritab démb di sa noonu tey sa dëkkandoorab démb tey nekk ki nga gën a bañ tey ci kaw suuf sa mbokk di sa noon tabaarakallaahu ki nga àndoon ak démb tey ngeen mujj bangante kenn ku ci nekk tibb sa tànki morom kon li yonent bi dëlee woon ca juróom yëpp bañ ko defee juróom yëpp tamit seen safaan ba xegsi na ci ñun kon nag nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax ayaat yaa ngoog ci yaa ayyuhal lazina aamanu inna kasiran minal ahbaari war ruhbaani te mu jar a bàyyi xel muy ñett jikko yu nekk ca ñoom te ñett jikko yëpp yu na daagu na dox na waaxu na tey ba ci suñ penc mi mooy kilifa yuy lekk xalali nit ñi ci turu diine te teguwut feet kilifa yuy jaayi daraja yu dul rëy jàngalewuñ jubbantewuñ teguwuñ ci yoonu siraatal mustaqima yee maanaam pare wuñ pour xee ña nekk seen gannaaw ndax nañ ne buñ leen xee ñi xeweeku nanguñoo ñàkk kenn ak kilifa yoo xam ne gën a bëri alal ci société bi gën a bëri alal ba mu alal dul jeex waaye dara duñ ca defal yàlla dara lu dul seen bopp rek moo ca gën a bëri ak seen njaboot su boobaa nag ala kulli xaal loolu buñ ca xeggee rek ah, mënuñoo maanaam musiba bu bëri danañ dal suñ kaw. waaye kilifa yëpp war nañoo roy tey saanam sëñ Ahmed Sakhir loo góor ak yàlla gu màgg googu yore daara ju tool ni kokki ba mu génnee àdduna ba ñu seetee poosam yi ñeen fukki dërëm la bàyyi ñeen fukki dërëm daal la yóbbuwaale àllaaxira waaye lépp lu mos a tegu ci loxoom rek def na ko ci yoonu yàlla te xam naa ne ñeen fukki dërëm yooyu mu baaxee ko néew dafa guddee ñëw rek waaye wóor na ma ne bu guddee wutoon a ñëw sax mu seet ña ko xeeyoo moom jox leen ko. di jangale dara ja top ko ñi xey duñ am luñu lek lekk duñu am luñu naan mu ne yalla mi ñu sant jangale dal nañ jang rek mom nak problème suñ lek ak suñ naan rek nañ ko ko waye tay alhamdullilah rabbil alamin ci ngay xamne yalla dong moy lu wër suma ko tuddé nak tudduna kilifa yu bax yu mel ni yu bari waye timit nak bari nak kilifa yo xamne dañuy mbubboo mbubbu ñoña te taxut ñi mel nona ñoña timit ñun ñëpp nañ góorgóorlu roy ca gaa yu baax yooya tabaña mel ni ñeneen ñi ndax bu ëllëgee tamit ku ca nekk ba dee tabaarakallaahu da nga réccu loo doon juddoo boo dajeeg sa borom kon nag nañ ci bàyyi xel kilifa warul yore meloo compte banque lu ñëw rek nga denc waaye tabaarakallaahu dafa war a yore meloo poste mooy alal jay jaar ci loxoom di dem ca seeni borom su ko defee waaye kilifa bu yorewut meloo poste rek su boobaa. waaye yore meloo compte banque lu ñëw mu rënk lu ñëw mu denc lu ñëw mu takk yóbbu demal dencal ma bàyyi fi xalal ju dul jeex tabaarakallaahu loolu tamit dëgg dëgg nañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax yàlla na yàlla defal ñu tawfiq ak taysiir xir ñu ci boppam incha allah boo ma toppee suba ci waxtu wi nag ma ñëw ak yow ci yaa ayuha ji nga xam ne tabaarakallaahu moo cay tegu aa ci nidaatu rahman waaye loolu mu ngi nekk suba ci waxtu wi yaa ayyuha ji nga moo cay tegu nag mooy fi yàlla di waxee ne yaa ayyuha alladina amanu taqullaha xaqa tuqaati wala tamutunna illa wa antum muslimuna loolu ña ngi koy fekk tabaarakallaahu moom tamit suba mooy nekk suñu bopp darsu yàlla na yàlla yóbbuñu ca wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alamin was ginnaaw bi nga seetaanee vidéo ba pare fekke abonné ko na nga abonné te bës touche cloche bi ndax bu ñu dugalee vidéo nga mën di jot notification yi